Ama bu Siteu eh, ay jamaykee lamb na sama poos tafuma arbitre bi sifflé na ñaari xale ngi noonu man da ma ci kan moo ci arde cinquante cinq ak Ama bu Siteu ndaysaan kan moo ci Ama kan mooy arde ña xeex ña ngay ma ngay jël big poto kan mooy Ama lamb jaa ngi noonu ma ngay dóor ama lañu dóor ama dóor nañ ko ndaysaan ardo 55 moo la woon ginnaaw ama nga jàkkaar lool ah gars yi est la demee noonu la demee sax ña ngay bëre ardo ak ama ndaysaan ndox mi may naan neex na de Ardo ak Ama. ma ne jili xam nga ne ndox mi ku ko naan boo bëree rek. Ah. combat bi day neex. Ah, ma ne ndox mi si ñam yi yéex naa ah. ñëw ci làmb ji. ah waay jàmm gi ci waaw ma ne gars yi gis ngeen xale yaa ngi bëre. combat yi neex na ndox mi neex na ma ne ko moo ko ñam na ko nettal. dafay kay wax nga ñam. donc bu la sponsorisé yàlla mu ñu amin. na ko nettal. ndaysaan ñoom ñaar Mame Mor ak Ziza ñu ngay dëkkante Cheikh Super Jamono leen boole jaadu na ñu ngay dëkkante Ama ndaysaan ak Ardo 55 Ardo 55 Ardo 55 ndaysaan ak Ama Ardo ak Ama ndeysaan ndeysaan ñu ngi noonu gaa yaa ngay dëkkante lii dafa war a neex da ngeen war a dëkkante di xeex ndax làmb la <laughs> waaye Adama Adama ngay waaj xeex da ngay waaj bëre ndeysaan Mamor ak Mamor Rufaas ndeysaan ak Ziza ñu ngay dëkkante sama ginnaaw ñoom ñaar ñëpp Cheikh Super Diamono moo boole làmb gi ñoom ñaar ñëpp ku ne da leen Cheikh Super Diamono da laa daan kii naan dama koy may sens <laughs> Ama ak ndeysaan Ardo 55 Ardo 55 ak Ama Ardo 55 ak ak Ama Ado 55 ak Ama. arbitre bi sifflé waat na sama Ama ak Ardo. Ardo 55 Ama. Ama moom nga jàkkaar lool Ardo moo la woon ginnaaw. Dóor na Ardo ngay dóor. Ardo ngay dóor. Ardo Ama. Ardo ngay dóor Ama Ardo ay ca Ama Ardo ña ngay xeex lan moo nar xew Ama Ardo Ardo 55 ak ndeysaan xale yaa ngi noonu

Ardo Ama ñu ngi jàppante ndaysaan dara xewagul Ardo Ama Ardo jël na caxabal na lan moo nar Ardo Ama ndaysaan Ardo Ama kenn du ne combat wul li ma dëgg tey promoteur bi moom balaa wax mooy wax li wax mais dama ne lii mooy lamb lamb bëri dañu tolloo doole ah. tolloo doole lu ñu nga boole Ardo ak Ama. waa gis nga tey Ardo 55. waa gis nga. ak Ama. billaay instant bi kan ak kan nekk ci biir mbañ gàccee nekk ci biir géew bi de. instant yi mbañ gàcce. waaw déedéet. yaa ngi mbañ gàcce ak bébé Saloum noonu la. ah ñun de ngañ mbañ gàcce mbañ gàcce ak bébé Saloum même gàcce mi ngi jege Mor Fadam. bi bi paree sa programme yi da nga cee juum de. da ngay nangu loolu. ma yónni moo juum damaa defar dafa wala ki ma yónni dem dëpp ko. na ah. amateur xam loolu Ah. waaw kon ñun reporter lu ñu wax rek nañ xam ne programme bee faussé. man faussé wu la ma bindoon laa bindoon ca ca ba. waaw mais ka ma yónnee dëpp carte gi. la ilaha illallah. kooku de bul ko fay li ko de ma xool nga ni combat bi karakal la ku la woon ginnaaw kon. mbañ gàcce. mbañ gàcce Mor Fadam Bébé Saloum moo jàkkaarloo yow. Bébé Saloum ak mbañ gàcce. ndaysaan ngeen ko. programme ba changé na. bi poto ñëw na décanté situation bi. mbañ gàcce ak bébé Saloum ndeysaan bébé Saloum moom ngeen jàkkaar lool mbañ gàcce mbañ gàcce nag ñi xamul classe Adama gi xamul mbañ gàcce mag ñi ñoo ko daan yor maanaam kër la wala néeg ah dugg na ah dugg naa ci lu ma waxul dugg naa ci lu xamul de. Ndeysaan sifle na ba tey ñu ngi waat ci combat bi mbañ gàcce ndeysaan moo la woon ginnaaw ak bébé Saloum numéro 2 bañ gàttee bébé Saloum combat bi yàgg na nag bëri nañ ba temps bi jeex ñu dellu si ñoom ñaar ndaysaan oh Adama suñu waajaa ngay dem de sant yàlla woote na ba sonn ba ngay dem ah ah loo ci mën mbañ ak bébé Saloum. bañ Gàcce Bébé Saloum Mbagne Gàcce Bébé Saloum Mbagne Gàcce ak Bébé Saloum Mbagne Gàcce Bébé Saloum Mbagne Gàcce Bébé Saloum Mbagne Gàcce Bébé Saloum ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu waa combat bi dafa war a gaaw ma ngay dóor Bébé Saloum mi ay rokkas yu garaaw la Bébé Saloum mi rokka si garaaw la mañ gàcce tamit ah bëre leen waay bëre xale waay ma ngay dóor ma ngay dóor jëli na ko ma ngay tànte de Bébé Saloum ma ngay tànte de Bébé Saloum ma ngay tànte xaw ma lan lay togg moom Bébé Saloum waaye ma ngay tànte daal Bébé Saloum ma ngay tànte mbañ gàcce bébé Saloum combat bu yàgg moom xam na la may def dàll bu xat sama xol bi lay jàpp parce que man damaa bëgg ay xale teel a libéré amateur yi supporters yi teggee ko ci stress ah ah waay combat bi waay ayca waay booy ayca ayca ndaysaan mbañ gàcce combat baa ngi noonu mbañ gàcce mbañ gàcce ndeysaan gàcce ak bébé Saloum bébé Saloum numéro 2 mbañ gàcce mbañ moo ngem boo ngem lu weex li bébé moo la fete ginnaaw mbañ gàcce jongale na ko tegal luy xew mbañ gàcce bébé Saloum bébé wër na ko ndomba ma ngay dóor wër na ko ndomba ma ngay dóor ma ngay dóor daan na daan na daan na ko daan na ko xàcc bébé daan na mbañ gàcce bébé daan na ko oh! waay Saloum waay eh bébé Saloum waay